bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV Soir waxtu wi jot na sunu gan yegg si na ñoom nag plaisir di recevoir tey ci plateau bi Babacar Diop il est responsable politique nekk adjoint au maire bu Grand Yoff bokkit taxawu euh, Sénégal Babacar Diop ñu ngi lay euh, nuyu. Euh, merci Mamadou Awa maa ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu tous les téléspectateurs de 7TV à sa tête la présidente directrice générale. madame euh, Nafi Maïmouna Ndour Faye mhm. et d'ici teg aussi mes camarades de la plateforme Taxawu Sénégal à sa tête le président Khalifa Ababacar Sall mhm. euh, di nuyu enfin le peuple sénégalais jërëjëf merci beaucoup di sant bu baax Babacar Diop plateforme taxaw Sénégal bi nga wax kenn ku bokk ci yéen muy Moussa di njiital euh, Alliance démocratique Pencco dafa génne tey benn bind di nag dénoncé li nga xam ne mi ngi ko tuddee résidence surveillée bu kii di Ousmane Sonko euh, nee na jaaduwul depuis plus d'une semaine ñu bloqué ko foofee mënul dem mënul dikk euh, ndax yow da ngay am même appréciation appréciation voilà ci mbir moomu noonu euh, ni mu tëddee ak Ousmane Sonko le fait mu nekk mënul génn depuis une semaine. Euh, merci Mamadou du moi je pense que euh, Moussa Tine il a effectivement raison je pense que. ni nga xamante ne moom la ñu barricadé le président Ousmane Sonko te amul benn papier administratif bu koy symboliser wala bu koy certifié. Mhm. bokkul ci loo xamante ne dafay ñoŋal démocratie. aujourd'hui nous qui sommes de la coalition Yewwi Askan Wi de l'opposition je pense que sans exception tous les leaders dañ koy condamner. Mhm. dafa bokkul ci loo xam dafay defar démocratie. et je pense que depuis 2012. Macky Sall le président Macky Sall dafa am lu mu ñu tamal lu mu ñu tàmmal mooy que li mu am yëg-yëg mhm. li mu bëgg a def loolu lay def et malheureusement nous avons une justice aussi boo xamante ne daf koy topp ci ay bëgg-bëggam pratiquement lépp loo xamante ne dañ koy def ci justice bi en général bu déparé balaa muy am njeexital Sénégal yëpp xam fan lay mujj mhm. ndax fi muy mujj en général mooy bëggi-bëggi Macky Sall dafa am benn plateau bu ñu ma invité woon temps yële la veille même euh, de la délibération bi nga xam moom la ñu def. Mhm. Euh, la mu leen waxoon le premier juin loolu moo ci amoon. la mu leen waxoon ne fi ñu jaarale Karim Wade jaarale fa xalifa Sall fa la ñu fas yéene jaarale le président Sonko et moo tax bi verdict bi génnee ça n'a surpris pratiquement personne. Mhm. et je pense que loolu bokkul ci luy defar démocratie le Sénégal dafa nekk réew boo xamante ne dafa am nu ko dàkkante la woon. mu nekkoon réew boo xamante ne dafa amoon image à travers l'Afrique à travers le monde tey fi ñu toll am na leneen loo xamante ne ñu ngi koy séntu ci président Macky Sall mais nii muy doxalee nii vraiment ça ne rassure pas. Mm-hmm. et je pense que bu dee dañoo àtte Ousmane Sonko ñu ne dañ ko am lu ñu ko condamné donte ñun ànduñu si je pense que lépp loo gis si àdduna dafa war a am procédure. Mm-hmm. rawatina lu jëm si justice. Mm-hmm. effectivement. damay rejoindre les propos ou les écrits mm du président euh, Moussa Tine qu'effectivement il a raison Sonko li ko teg jaaduwul teguwul fen et que dañu war a rectifier le plus rapidement possible pour yokku dal Sénégal justement dal googee ngay wax est-ce que du tey ji ni ak ce qui arrive euh, favoriser wul euh, dal gi maanaam boo seetloo Ousmane Sonko bi muy am euh, liberté de ses mouvements Il parlait souvent à ses militants, il leur demandait de sortir, il leur demandait de le rejoindre, il leur demandait, il leur demandait. Mais depuis un certain temps, on a vu que ça s'est calmé. dëgg entrave liberté euh, dara war ko justifier mais tey jii est-ce que pour le bien euh, collectif pour le bien de tous yenn mesures yi état amul droit jël ko. waaw loolu nga wax noonu euh, Mamadou moi je pense que perception la mais maintenant les perceptions bokkuñu. ni mhm. ku ni muy gisee le président Ousmane Sonko du tëb oote pour ñu ñëw rejoindre ko su dara amul donc saay bu oote amee xamal na teg nañ la injustice moi comme j'ai l'habitude de le dire ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk exemple ak le président Khalifa Sall lii nga xam moom la ñuy def Ousmane Sonko ñun ànduñu si mhm. xëy na ñun ak waa ñooñu Ousmane Sonko dañu bokkul ni ñu tàggatale si politique mais tey kenn ku ci nekk la la teg yow yaay xool na nga yaakaar ne moom ngay xeexee pour ñu teggi la ko man jàpp naa ne tant que ñu ngi oote résistance résistance boobu noonu di méngoog les lois et règlements de ce pays. Mhm. pour man droit wam la. mais justement est-ce que méngoon nag droit ak règlement yooyu noonu parce que à chaque fois qu'il appelle à la résistance les conséquences xam nañ ko y a mort d'homme Khalifa Sall teg nañ ko injustice euh, daf ko subir nangu ko. Euh, metti woon na mais nangu woon benn bakkan rot ci te kenn daanuwu ci Sénégal yi gën nañ ko ci respecté donc on comprend pas tey trois ans cinq ans après yéen ngeen di jàppale koo xam ne il appelle les gens à sortir à à mourir moo ko tuddee noonu alors que yéen nangu leen ko woon seen bopp mais ngeen koy nangul keneen. waaw xam nga dama la wax si njëlbeen ne la éducation politique yi bokkul yarin politique yi bokkul parce que ñun booy wax avec la Khalifa Sall. Mhm. en tout cas avec ses compagnons. oui a été formés. est formaté, préparé. Ça, c'est un. De deux, je dis une fois de plus, en tout cas moi personnellement, gisuma fenn foo xamante ne président Ousmane Sonko oote na fa ne kaay leen ñu dee. leen dee il a dit lu mel noonu. wax na mortal combat wax na président Sall dina ma rey wala ma rey ko wax na allons Dakar en à Dakar en finir avec Macky Sall. loolu yëpp wax na ko. waaw mais dañuy dem Dakar ay cooki fin xam nga cooki fin ba léegi dee amu ci. si dee am na ci. et et et quand et quand il man man man maay dee wala sonk mu wala wala. Macky Sall de il parle de lui-même. à que moom lay waxal moom jëmmam moi je pense une fois de plus et yooyu yëpp pour man c'est des terme ay kaddu la ay wax la mais reflété wul en tout cas ci li nga xamante ne moom moom noonu lay. Babacar bu yemoon foofu rek du garaaw mais quand il a dit nañ dem Dakar euh, en finir avec Macky Sall sur la route à Kolda y un mort. donc tey jii nii yéen a ngi dénoncé. kan mooy rey. kan mooy rey l'enquête doit déterminer ça. kan mooy rey boobu noonu je pense que lu ñu waroon lijjanti la depuis deux mille vingt et un Mamadou Awa il faut que ñu comprendre une chose au mois de mars deux mille vingt et un. Mhm. il y avait des émeutes. oui et que. partie de l'appel d'un homme waaw attends durant de non mais nit kooku noonu ñu oote. aujourd'hui il a eu raison parce que la taxoon ñu jiiñoon ko ko lan la mooy que dañ ko jiiñoon viol. ak tentative de meurtre. et vous pensez qu'il a raison. mais pourquoi ba fii ñuy wax yow nii amul benn enquête amul benn preuve boo xamante ne génne nañ ko béjji ko ci taabal bi ne moom moo ko def. mais justement justement loolu moo lay wane ne li mu bëgg wax mooy justice bi mu bi mu dénigré wax ko moo ko moo ko jii nii donc est-ce que lépp jaroon na ko. est-ce qu'il parle de la justice en général. il parle très souvent de la justice en tout cas. il a dénigré les magistrats yoon bi tout ça wax na ci. à chaque fois qu'il intervient. et pour dénigrer la justice il a toujours cité nommément des noms. mais quand il refuse d'aller répondre à la justice, il a toujours là c'est un affront à la justice et il a toujours dit que lépp luy yàqu tourne autour de quatre magistrats et il a toujours l'habitude de de de de citer ces quatre magistrats et moi je pense une fois de plus le plus important du loolu le am solo dëggantaan mooy def na wala deful mais bi ñu demee ba nga xamante ne jeexal nañu. jeexal nañu procédure bi mais bi ñu jeexalee procédure bi li nga xam te ne moo si génn loolu moo am solo loolu la ñu war a jàngat loolu la ñu war a ça veut dire qu'il y a une justice dans ce pays mais contrairement à ce qu'il disait en tout cas nous personnellement nous y croyons mm-hmm. nous y croyons moo tax ñun on ne comprend pas ce que vous faites avec avec dara dara ndiroole wu leen affaire wax nga ko léegi vous avez été forgé par l'ancienne école du parti mais boole ñun li ñu boole ak ak la coalition Yewwi Askan Wi mooy ñun ñëpp dañoo am yéenay defar Sénégal ànd bokk ko ñu jugee nag kenn ku si nekk feneen nous venons d'horizons divers mm -hmm. on n'en disconvient pas nous n'avons pas les mêmes formations politiques on n'en disconvient pas mais ñun ñëpp ñoo bokk am yéene dañuy defar Sénégal mooy maanaam ñun ñëpp dañoo am yéene dañoo bokkul ay yoon donc l'objectif aujourd'hui c'est de fair bloc pour jàkkaarloog Macky Sall ndax nag Macky dafa am lu ñu tàmbal de 2012 à nos jours si aujourd'hui ñun du ñu jàng fàtt suñu bopp promouvoir aujourd'hui l'intérêt commun faire un bloc autour de l'opposition mënuñu jàkkaarloo Macky Sall parce que ñëpp xam nañ ne un état c'est un rouleau compresseur mhm. jafe xeexal donc jàpp nañu ne amul benn leader boo xamante ne jàpp na ne moom mën na jub jàkkaarloo nguur gi nërmel ko mais mais tey donc est coup que... nous avons obligation aujourd'hui oui. de s'unir ou de mais est-ce que ñi ngeen di combattre euh, ñoo yées ñi ngeen di àndal pour pour combattre ñooñu parce que li loolu mooy am nañu doon ànd ak Ousmane sonk bu njëkk euh, la coalition Sonko président ba nekk jot na ils lui ont tourné aujourd'hui parce que ils se sont rendu compte li ñu wax mooy que ne euh, ñi ñu àndal ñoo pire que ñuy combattre yéen am na lu ngeen subir ci coalition bi jóge ci ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef mooy ay yuuxoo seen leader lu ngeen di xaar pour jël seen ay responsabilité Mamadou Macky la ñi àndoon ak moom 2012 à nos jours am na ñu bëri ñu ko quitté. ndax mhm. ni mu doon fonctionner ak ñoom doyu leen. ñun avec le président Khalifa Babacar ku ko xam ci dalam ci teeyaayam ci bëgg nit ak respecté nit am na ñu ko bàyyi bi mu génnee prison ak léegi yow xam nga ci dara ñun xam nañ ci dara. Mhm. des gens yoo xamante ne daf leen defar. donc ànd politique dafa mel ni train la wagon la saay bu ñu eggee fenn dina am ñuy wàcc am ñuy yéeg donc man du ma xayma nit wala may juger nit si loolu parce que gis-gis yi ñoo wute politique dafa versatile. Mhm. période bu nekkee dafay soppeeku. il faut avoir un très bon moral pour gérer ce genre de situation mais Babacar mais mais oui, mais moi je peux pas dire que ñi ñu àndal ñoo gën a yées ki nga xam moom la ñuy xeeral parce que c'est dire que Ousmane Sonko moo gën a yées Macky Sall ñun mënuñu gisee noonu ndax ñun Macky dafa am lum ñu teg. Mhm. ñu dund ko dans la dignité lim ñu teg noonu bi ñu koy teg dañ ko teg mu nekk atrocité bu doy waar nous avons su gérer cette situation étant un homme d'État. Mhm. avoir un esprit de et j'ai l'habitude de le dire ñun dañoo baale mais fàttewuñu et Khalifa Sall am na lu am solo lu mu wax mhm. dafa ne son objectif aujourd'hui mooy nañu góorgóorlu ba képp koo xamante ne da nga am yéene daagaan baatu askan wi nañ la pay la possibilité de participer et de laisser maintenant le mais on vous reproche on vous reproche souvent de pas prendre vos responsabilités li tam wax mooy dans le PS avec Tanor Dieng à un moment donné on savait tous que ki mën a yóbbu parti bi mu am ndam c'est Khalifa Ababacar Sall mais ngeen nekk fa di léwtoo di kii ba ñu exclure leen ñu dem ba ci biir gis nañu que ne bi leen Macky Sall di sàkkal pexe amoon ngeen possibilité sàkku ci sénégalais yi ñu wax déedéet mais vous vous êtes laissé boo mu mënee wax euh, voilà amené à la guillotine euh, tey ji ñetteel bi aussi ngeen ànd ak Ousmane Sonko on voit que vraiment euh, nangul dialogue bi il a même fait des par rapport ak ñi nga xam ñoo fay dem dañuy dañuy négocier dañuy valider candidature Macky Sall ngeen noppi ba tey nekk ci biir parti bu toll ne pas parti quoi plateforme bu toll ne yéen doole gi ngeen am estime bi ñu am ci yéen yaakaar gi est tamit du baax fois ngeen ne déedéet jot na ngeen jël seen ay responsabilités. xam nga Mamadou Awa su ma la toppee si li nga wax yëpp dafa génn ñett ci nit ki nga xam moom moo ñu jiite. mooy Khalifa mhm. Sall kilifa la mooy c'est un nom d'état plein de sagesse mais quelqu'un qui sait vraiment faire la part des choses. revenons sur le parti socialiste c'était le secrétaire à la vie politique mm -hmm. il s'agit de faire de prendre ses décisions non il a absolument pris ses décisions ndax bi ñu demee ba ñu war a def le oui et le non le parti socialiste a fait le choix de dire oui Khalifa Sall a pris ses responsables pour dire non si il sait prendre ses responsabilités bi ñu ñëwee tey jii ñu ne bi mu waree jàkkaarloo ak Macky Sall mhm. pour oote peuple bi oote peuple bi pour lan je pense que si biir wax dama la ko waxoon dama leen ne nous avons une formation politique particulière nous sommes des hommes d'État. nous empêche, on a été formatés qui vous empêche attends, attends. de marcher sur pour faire la distinction lan mooy état ak lan mooy politique. parce que mm -hmm. entre la politique et l'État dañoo ànd mais bokkuñu. Mhm. donc ñun bu ñu jëmee lu jëm ci affaire état xam nañ fan lañ si war a taxawee Khalifa Sall lañ ko wax la woon su ko waxoon coow du jib benn bu njëkk bi moo doon mu ñëw rejoindre le par la mouvance présidentielle il a été catégorique il a su prendre ses responsabilités la deuxième chose lan la woon mooy que képp koo xamante ne laale woon nga ci caisse d'avance bi Khalifa Sall génnee ko parce que ñëpp xam nañ ne bu ñu déclassifié woon le rapport amul fenn foo xamante ne bindoon nañ fa ne Khalifa Sall dañ ko waroon dafa waroon am ay poursuites judiciaires. mais loolu laay wax nii en fait. non justement da ngeen a nangu ko. non non non leen loo xam ne amoon ngeen ay chance de réelle chance en 2019. non je dis et je répète nous n'avons absolument rien regretté et si si si c'était à refaire Khalifa Sall daf koy. ndax lan parce que vous refusez de marcher sur des cadavres. non seulement non seulement nous on a été préparés formatés mais li nga xam moo si am solo dëggantaan mooy dañu waroon na. xaaw xaawi ay sutura doomu aadama ndax ñi nga xamante ne Khalifa Sall daf leen ne. ñu ci ëpp ci bi dañoo dénigré lañ bokkoon. non mais bien sûr. voilà mais nous moom ah moom un homme d'État ne ne réfléchit pas. Oui, comme ça il faut de politique. c'est-à-dire que nekkuñu Touba wala Tivaouane. non lañ nekk. waaw mais politique loolu politique la mais Khalifa Sall li mu yore woon les dossiers en main c'était pas de la politique il faut être un homme d'État. ndax au-delà de ceux qui étaient à la mouvance présidentielle amoon na ay doomi aadama yoo xamante ne suñu papa suñu mm-hmm. ndijaay suñu yaay ñi nga xamante ne dañoo feebaroon ñu évacuer leen Maroc mu amoon sutura loolu seen mbokk yëguñu ko ma sàmba yëgu ko ñoo ñooñu bés bu ñu waroon génn dugg si yenn déballage yi di nga ci gis ay kilifa yoo xamante ni dañu xawi seen sutura mm-hmm. Khalifa Sall moom ak loolu ndax li nga xamante ne moom moo waroon tegu si junniy sénégalais il a préféré moom mu endossé ko Khalifa Sall c' est un homme d' waaw da nga wax lu am solo xam nga lu tax wax la loolu. c' est un homme d' état et c' lépp la ñuy wax. xam nga da nga wax lu am solo. lu naroon na dal ci junniy sénégalais. daf ko endossé mu yam ci moom. tout le contraire d' Ousmane Sonko. qui pour sa personne appel les gens à sortir y a eu combien de morts depuis deux te kooku ngeen àndal tey jii nii loolu la sénégalais yi comprendre lul. dis une fois de plus. dama ne li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne mooy li xew. te yow ñu indexé indexé euh, indexé le président Ousmane Sonko mais je suis désolé la mouvance présidentielle dañ si am part de responsabilité ndax bu dee tey ji Ousmane Sonko dafa woote ba xale yi génn dëgg la mais li andi tey jii xale yooyu génn mais foofu dañ ko war a leeral ndax li tax nit ñi nekk à l'aise tey bu ñu demoon si procès bu mujj bii ñu génne ay preuves palpables. ne Ousmane Sonko moo def. kon sénégalais yu bëri am gàcce rus mais li nit ñi mënul comprendre ak lépp loo xamante ne aji Sarr avec son avocat maître El Hadj Diouf et tout ce qui tourne autour de la mouvance présidentielle wax nañ ko fi mais li nit ñi doon xaar mooy jour procès bi ñu génneel ñu des preuves palpables par rapport à cette situation pour mettre à l'aise les Sénégalais su boobaa nit ñi reste les bras croisés bàyyi leen li war ci Sonko ñu def ko. mais li xel mënul nangu amul. mais condamné na ko quand même ci loo xam ne jàpp na ne am na lu xew seen diggante ñoom ñaar. non ñun ba léegi dara leerul suñu bopp parce que loolu noonu mais amul ay preuve xam nga liñ liñ doon xaar mooy lan. vous pensez que amul ay parce que manque de preuve bénéfice du doute lay indi euh, te loolu sax profite à mais li xel mënul nangu loolu dafay gën a réconforter que mouvance présidentielle bi dañu teggiwul seen loxo ci justice bi ndax tey jii li xel mën a nangu. c'est le même juge qui a blanchi entre guillemets Ousmane Sonko ci viol bi. non non blanchiruñu ko ci viol bi gis nga mbir mi affaire naxaati sa def ci xaw a fay. waaw bi ñu requalification des faits. dañ ko jëlee fële indi ko fii. Ah, mais jàpp na ne forcé amu ci. l'objectif c'était quoi c'était de le rendre inéligible point barre te li ci am solo dëggantaan moom Awa du loolu mooy que ñëpp xam nañ ne xeexu justice bi Ousmane Sonko ak Adji Sarr. opinion bi daf si amoon solo loolu kon jàppa nañ ne bu dee juge bi wala partie su kii civil bi am nañu si ay preuve li nga xam moom lañ doon xaar si ñoom mooy ñu génnee ko face à l'opinion dafa am solo ndax Sénégal yëpp a taxawoon di déglu lii xew kële ñu ne dafa def dafa de il a il n'a pas il n'a pas accepté maintenant de de de de répondre la justice mais li nga xam te ne moom moo ci nekkoon mooy que waa kër Adji Sarr yi ils étaient seuls à mm-hmm. absolument rien ne les empêchait vraiment de prouver à l'opinion nationale et internationale Maître El Hadj Diouf il a demandé à diffuser eh, benn élément non, mais non. juge bi moo ko nanguwul yàlla rek a xam ne ne ci élément boobu dama ne gis nga si diggante bi gis nañu les réseaux sociaux li ci xew képp koo xaman ne amoon nga si ay preuve muy audio muy visuel muy lépp gars yi génne nañ ko moi je pense sincèrement si maître El Hadj Diouf avait des preuves palpables à l'endroit de Ousmane Sonko dina ko génne bu ko génneewul ci tribunal ba dinañ ko génne dans les réseaux sociaux. d'accord gars xam nañ nan la ñuy fuiter. les informations Babacar. moi je crois fermement. oui qu'ils n'ont aucune preuve à l'endroit. léegi procès bi jeex na. président Sall woote dialogue euh, ngeen teew ci yéen waa taxaw Sénégal Khalifa Sall def fa discours bu am solo boo xam ne ñu bari rafetlu nañ ko euh, mais au lendemain du lancement euh, du dialogue dëkk bi tàkk y eu huit morts ci lendemain bi de casses ay milliards. six premier jour bi je pense que huit morts la loolu la ministre de l'Intérieur wax. Hmm. six yi lendemain bi la. voilà léegi euh, fi ma bëgg a jëm mooy est-ce que vous avez eu raison d'aller au dialogue qu'est-ce que ça a changé dans la mesure où Ousmane Sonko préveniroon na leen avertiroon na leen que ne ça ne servira à rien parce que lépp lu ñu war a waxtaanee waxtaanee nañ ko ba pare. waaw loolu loolu de plus loolu opinion Ousmane Sonko mais les faits lui ont donné raison. le lendemain dëkk bi tàkk je suis désolé. ce mhm. n'est pas le cas. loolu Ousmane Sonko la engagé ak waa PASTEF li ñu boole waa PASTEF c'est la coalition Yewwi Askan Wi. Mm -hmm. Yewwi li nga xamante ne moom moo ñu lié woon c'était les élections locales les élections législatives et au deuxième tour su amee élection présidentielle. alors ñun nous, nous avons pris nos responsabilités mooy la plateforme Taxawu Sénégal. te bu ñu fàtte mukk en 2019 Khalifa Sall bi ñuy yónni soo am war ni pour ñu dem ci dialogue bi il était en prison Khalifa Sall c'est un socialiste c'est quelqu'un qui croit fermement au dialogue mm-hmm. ndax dañu jàpp ne réew dañ koy péncoo kon waxtaan dafa nekk le début et à la de tout processus kon ñun nous avons assumé notre position mais li am solo dëggantaan mooy bi xalifa Sall demee lan la wax ñun ñoo leen yay parce que nit ñi jàppoon nañ ne ñun dañoo dealer avec le pouvoir. Mhm. pour dem waxtaan ak ñoom pour des intérêts crypto personnels dama ne xalifa Sall moo mag loolu. être président du Sénégal c'est pas un fin en soi pour xalifa Sall. xalifa mhm. Sall dafa am carnet d'adresse bu ko mën a permettre mu defar Sénégal am yéene Sénégal mu mën a nekk nag un très bon président de de de transition parce que xam nañu ne Sénégal. ki koy defar dëggantaan. un président de transition qu'appelez-vous par euh, qu'entendez-vous par là. xam nga koo xam ne da ngay ñëw pour def ay deux mandats en général soo ñëwee li ngay njëkk a mooy nan ngay lijjantee un deuxième mandat. comme Macky Sall. mais aujourd'hui tu prends le cas de Khalifa Sall avec son âge Khalifa Sall non seulement il a un très bon carnet d'adresse. Mm mm-hmm. très respecté. c'est quelqu'un qui veut redresser la situation de ce pays. ci benn mandat. muy benn mandat parce que li sam solo dëggantaan les gens nous parlent du système mais est-ce que tout le système est mauvais je suis désolé ce n'est pas le cas le système nécessite des réformes du lu ñuy dind ba mu set. Sénégal day réformes kese la bëri na yoo xam ne vraiment. waaw mais c'est des c'est des non c'est des réformes yoo xam ne qui n'ont pas été appliquées dans les règles de l'art mhm. gis nga réforme boo koy appliquer. danga nga ciy dem ba mu sës mu mel ni acte trois de la décentralisation réformé nañu mais dem ñu jusqu'au bu mhm. moo tax yenn collectivité locale yi sonn mais aujourd'hui les réformes yi nga xamante ne moom la ñu mën a xaar ci président Khalifa Sall loolu mooy nekk forum moom parce que quelque comme on dit du système qui connaît le système ceux qui connaissent le système ñoom ñoo mën a réformer le système mais Babacar votre présence au dialogue lan la indi ci réew mi parce que maa la koy wax da ngeen ko lancé lan bi trois jours de suite euh, maanaam ña fa teewoon c'est pas eux qui maîtrisent alors euh, la force de la rue non ce n'est pas ñun demuñu dialogue bi pour bloquer li war a am suba non pas bloquer mais mais non attends mais c'était pour éviter les tensions électorales non non tensions politiques sociales yooyu yëpp ci la bokk mais malheureusement ça s'est empiré même non non attends c'est-à-dire que il faut que ñun ñu def la distinction mhm. ñun ñu ngi dem le 31 le premier dëkk Ah, waaw ñu présence si dialogue bi ban influence la am si jeudi si euh, euh, verdict bi ñu war a joxe le premier juin nu mënul am Mamadou c'est-à-dire il faut que. pas verdict bi mais conséquence su verdict bi. mais conséquence maanaam ñi nga xam ne ñoo meroon bay manifester si sa santé représenté ci dialogue bi amaana duñ génn jour boobu. dama ne je vous dis une chose. est-ce que en y allant vous avez pensé à ce que voulaient réellement les sénégalais yi ne ci mbedd mi. dama ne lii sénégalais si mbedd mi. yow xamoo ko man xamuma ko. si am ngeen ay militants. non vous êtes des des populations. mais justement dañu fàtte nañu ñun dañoo lancé nous avons dañoo lancé dañoo lancé benn benn benn benn waxtaan au niveau de la base. aujourd'hui la base toutes les bases de la plateforme taxawu Sénégal de Goudiri jusqu'à Tambacounda Sédhiou Vélingara tous les départements du Sénégal. toutes les collectivités locales yi nga xamante ne par taxaw Sénégal am na fa dañ leen jox la possibilité ñu waxtaan remonter ko au niveau du département c'est à partir du département lañ ko remonter au niveau de l'union régionale l'union régionale ñoo ko envoyé au niveau du sommet pour dire à Khalifa Sall vous avez carte blanche nous sommes d'accord avec vous nous voulons aller au dialogue parce que pour ñun tension bi nga xam te ne moom moo nekk ci Sénégal waxtaan moo koy au contraire nous avons eu raison sur eux. non je pense pas non malgré ça malgré ça. la rue s'est embrasée. non mais ça signifie peut-être que vous êtes minoritaire que amu leen benn. Euh, non mémise ci ñi nga xam ne ñoo ñoo doon kii jour boobu. donc donc yow da nga bëgg a wax ne yow Ousmane Sonko bi oote xale yi pour ñu dee donc xale yi dañu rejoindre Macky Sall. c'est la majorité qui s'est exprimée ce jour. donc c'est la majorité qui accepte de se de mourir pour Sonko. c'est la majorité des Sénégalais. Mm -hmm. qui acceptent maintenant de mourir pour Ousmane Sonko. loolu lay dur ah. non moo tax. parce que bloqué nañu non moo tax ma ne la moo tax ma ne la ni nga ni fi nga xalaatee du foofu. fi nga xalaatee du foofu et puis ak loo si mënti dégg mais na ñu wax ci émeutes yi les gens ils parlaient de ay France dégage. Mm -hmm. au début ils attaquaient les gens. oui gis nga ne après ay sénégalais de pure mhm. ñoom ñoo ubbi seeni magasin booy yi ko. Mhm. jël ay xaw ma Awa Ndiaye savon xaw ma la jeune hmm. dame là. oui liggéey ba bëgg a dee ñu dajji bu diggam. mais fan la tàmbalee fan la tàmbalee loolu. non fi mu tàmbalee appel bi nga wax sànq. Euh, non ñooñu tey jii nii seen ay alliés lañ. non du appel parce que avant appel bi avant moom bi ñuy bi ñuy joxe verdict bi il était déjà barricadé chez lui. Hmm. donc bi ñuy joxe verdict bi. Ousmane Sonko n'avait plus la possibilité de s'exprimer. Oui, mais il l'a dit bien avant. Non, mais justement. Il a préparé ses, ses gars bien avant. Non, non, Même s'il ne parle pas, voilà, ils finissent font déjà. déjà Mais justement, une fois de plus, même bu dee tey jii joxe woon na joxe woon na le coup de départ. pour mhm. booy génn ñëpp xam nañ ne li si rax li ci ëpp ay bandits la ay sàcc la ñu. c'est vrai la vérité. Mhm. c'est des brigands. des mais Babacar il mhm. bëgg naa vraiment. Mhm. comme que fi dal na. tekk na nan la ñu war a doxalee pour que loolu continuer. moi je pense que li ñu war a def rek mooy teg dëgg. gis nga Mamadou lu dul dëgg dëgg ko gën. c'est lu dul jàmm jàmm ko gën. moi je pense li nga xamante ne moom mooy dëgg Khalifa Sall dafa wax lu am solo. mooy jouru ouverture dialogue bi. Sénégal yëpp dégg ko. c'est vrai et j'en profite vraiment pour ñu rendre ko hommage un homme digne très courageux j'ai l'habitude de le dire nee naa leen la souplesse n'a rien à voir la faiblesse mais très souple mais très ferme sur ses décisions mm-hmm. daf leen ne suñu bëggee ànd nañ koy laal ci dëgg et li si am solo dëggantaan permettons à tous les acteurs mm-hmm. qui veulent participer aux élections présidentielles nañu leen may la possibilité d'y participer et de laisser le choix aux Sénégalais point barre mhm. ndax diggante fal ak folli mbiru suñu borom la tous les acteurs gëmul da ngay sonn y compris Macky Sall i non attention mais fan ngeen fan ngeen teg non ñi nga xamante ne ñun war nañoo bokk Macky du bokk non mais Macky warul bokk Macky moo ko wax ñun waxuñu ko Macky moo ko wax. oui wax na ko yéen tam am na ñu ko waxoon ci yéen ñu ne war naa bokk. ñu ne Barthélémy Dias. non xam nga ku mel ni Barthélémy Dias day waxal nit ku mel ni Ousmane Sonko day waxal nit. Mhm. bokkul ak ki nga xamante ne moom moo xalaat référendum bindalu ko. daal di koy expliqué jox sénégalais mu nekk le premier ma mu nekk le premier sénégalais des sénégalais c'est-à-dire que. la est que du mbind maa amoon problème. non non d'où la nécessité de laisser euh, conseil mu décider ñëpp tënku ci. non non le conseil vraiment le conseil constitutionnel j'ai beaucoup de respect pour eux mais fa dëgg yàlla le conseil constitutionnel. dañ la disqualifié. non non moi sincèrement lu jëm si affaire u ay vous savez sincèrement qu'on le veuille ou non. Mm-hmm. Macky Sall maîtrise toutes les institutions de ce c'est dommage. mooy buur di bumi. non c'est dommage mais c'est ça la réalité je suis désolé je respecte beaucoup ceux qui sont au niveau du conseil constitutionnel. merci temps bi jeex mais. c'était bien ah j'ai bien apprécié vous avoir sur mon plateau. et on a fait une bonne émission Babacar di la remercier bu baax a baax. merci en tout cas tous les Sénégalais tous les téléspectateurs de cette TV di vraiment aussi remercier ma famille politique le mouvement ADK. Mm-hmm. du ma bokk. di nuyu la ànd dooleel xalifa ànd dooleel xalifa donc bi nga xamante ne mu ngi ci biir plateforme taxawu Sénégal mhm. comme j'ai l'habitude de le dire la plateforme taxawu Sénégal est composée de partis politiques et de mouvements de soutien qui tournent autour du président Khalifa Ababacar Sall Focus 2024 incha allah jërëjëf jërëjëf sant bu baax Babacar Diop c'est un plaisir de vous recevoir dig daje suba jàmm incha allah à la même heure euh, lundi incha allah à la même heure jaa